yaram comme ni ñu waxtaanee léegi nii ko xam nga fu mu ne nii Sénégal ñun léegi ñu si ëpp four la ñuy jënd defatuñu fourneau te li tax defuñu fourneau yow mii di jaay yow mii di jaay këriñ bi mais ngay jàngal sama naataango yi ñu mel ni man nga xam dañuy jàng ba yaakaar ni four toggee fuur moo gën ay jënd këriñ yi yëfu yëfu yëfu ancien temps la loo loo loo ñuy jàngal ci ci këriñ. waaw di di di sant di yëpp. di leen xamal ne kër yi moom ñun loolu lañu njëkk a xam mat loolu lañu njëkk a xam xanaa kay yeneen kay ci mujjantal bi lañu ko doon xam waaye moom lañu njëkkoon xam depuis bu suñu maam yi loolu lañu njëkk a xam moom la ñuy toggee moom la ñuy defee lépp te mosuñu gis benn mosuñu ci gis gis benn erreur kon benn foofu la buñ ci mës a gis buñ ci mës a gis ñu taamu ko waaw sant gars yi mais yow léegi bu fekkonte ne par exemple ñun sénégalais yi nga xam ne ni ñu ngi nekk bitim réew bu ñu bëggoon ñëw di jënd këriñ ci yow di ko importer jënd suñu këriñ yóbbu ko France jënd suñu këriñ yóbbu ko foofu yow foo gis doomu sénégalais mu mën a ñëw jënd fii këriñ importer ko yóbbu ko ci bitim réew ëllëg ñuy dem jëndee ay four di ko indi muy ñëw fii wala ay micro ay microwave di ko indi fii di lor doomu aadama yi lan ngay lan ngay jàngal doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi bitim réew wala ñu man ni man jàng fii nekk ci dëkk yi mais pour ñu ñëw jënd këriñ dafay nekk lu diis ci seen xel ah, xam nga nit lépp li nga li nga li nga xam rek ngay mën a waxtaan ak nit yi loo xam moom mënoo ko waxtaan ak nit yi en tout cas daal lu am solo la waaw bu dee fii bu dee bitim réew waaw boo ko xamee moom am na solo amul amul amul amul benn jafe-jafe waaw moom baax na ci togg mi baax na ci lépp këriñ moom baax na moom barkaal jaaraama ah, comme ni ma la ko waxee këriñ gii dafa gën téméri junne ci kërign bu ñuy wax kërign li moo tax mais fi ma ni bitim rew ñom dañuy défar seen kërign bitim rew dañuy défar ay kërign bu meloon ni bi té doomu adamé bu ñuy baña a kërign fi Afrique bu ñu démé bitim rew jënd kërignu tuba ba fa lool dafa kéemaane bokk yi comme ni ma ko waxé ya kërign effectivement dina dem ba Amérique won leen kërign bi tubab defar tubab defar na kërign mais bokkeewul ak suñu kërign bi gën ñun dañuy am lépp lu gën mais bayiko fa di dem ci lu bon mbokk yi nak li moy euh, Fala Health ki doon addu fii di maam Samba Fall di leen yëpp lii yëpp pour jàngal leen salaamaaleykum